wax rek euh, mbégte lañ ci am ñëw tey euh, fekk cérémonie bii nga xamante ni dañ doon jot euh, ay dons muy ay ambulance di ay matériel médical yoo xamante ni ay doomu ndulo muy ñu nekk bitim réew ak ñu nekk fii ñoom ñoo boole seen doole ngir ñëw renforcer maanaam post bi ci équipement mais également ci logistique muy loo xamante ni tey dina tax comme niñ koy waxee santé bi gën a jege askan wi ci distance mais gën a jege askan wi tamit ci njëg njëg gi gën a oyof ci askan wi donc muy ne geste boo xamante ni vraiment kontaan nañ ci trop te di ko rafetlu tey euh, ñaan vraiment euh, ñëpp roy ci li ñu gis fii tey hôtel bi comme ni ma ko waxee léegi di ñaax ñi nga xamante ni ñoo koy utiliser muy personnel de santé bi waaye tamit euh, comité de développement sanitaire bi waaye tamit mbooleem ñi nga xamante ni dinañ ñëw ci post de santé yi ngir faju ñu bàyyi ci xel parce que matériel bi ñëpp a ciy jàpp c'est vrai que personnel de santé bi ñoo koy utiliser waaye tamit CDS yi dañ ci am rôle bu ñuy jouer ñi nga xamante ni tamit dañuy ñëw di fréquenter poste de santé bi ñoo am rôle buñ ñu ci war a jouer ndax lu mel ne lal tey du infirmier wala sage-femme ñooy tëdd ci lal bi waaye ñoo ciy ñëw di ci tëdd tamit am na nu ñu koy utiliser ba nga xamante ni dina tax yooyu matériel gën a yàgg. as moom li may ñaax population bi rek mooy lañ doon wax ci njalbeen nga ba léegi parce que léegi am naa amul ak nekk na fekk nekk fa yaakaar naa weesu nañu foofu léegi li ñuy wax nit ñi rek mooy ñu gën a farlu ci li ñuy wax mesure barrière yi respecté takk masque yi euh, yaakaar naa ñu ko defee ak yeneen euh, mesures yi nga xamante ni yëpp ñu ngi koy wax euh, dina tax. Euh, maanaam euh, xeex biñ koy xeex nii yàlla mën nañu ci defal ndab leneen li mooy euh, sous-préfet wax na ko léegi mooy ñu ngi sant yàlla ñàkk yi léegi Sénégal jot na loobu bu njëkk pour ñàkk yi te yaakaar am nañ ci yaakaar trop ngir mu mën ñu dimbale ci ñu gën a xeex mbas mi dëgg la loo bu ñu jotagum du mën a daj ñëpp xëj na personnes vulnérables yi rek lañuy ñuy cibler dans un premier temps waaye am nañ yaakaar ne bala moo yàgg dinañ jotaat yeneen loo yoo xam dina tax ñu mën a vacciner lu maximum de sénégalais. li ma leen ci wax mooy ñàkk moom du lu bees Sénégal xëj na nag jàngoro ji moo nekk jàngoro ju bees ba tax lu nekk dégg nañ ko ci te tamit dégg-dégg yooyu moo tax kenn ku nekk am ci taxawaay boo ci taxawee am looy gëm loo dul gëm wala looy ñemeek looy ragal waaye yaakaar ne. Euh, bis bu ñàkk yi commencé surtout ak résultat yi ñu ci gis ci réew yi nga xamante ni commencé nañ ko ba pare su ñëwee Sénégal tamit am nañ njort bu rafet ne même résultat yooyu lañ ciy am te ak résultat yooyu euh, rafet nañ njort ne dina tax ñi xawoon na sceptique maanaam ñi nga xam xawoon nañ ci ñaaw njort dinañ gën a gis lu dal seen xel ba tax na euh, ñàkk yi mën a déroulé wu ci anam yi mu gënee waaye li may wax rek mooy ñàkk la comme yeneen ñàkk yi sénégalais yi xam nañ ñàkk bu baax depuis 1979 ñu ngi ñàkk sénégalais yi ñàkk bi amul benn différence ak ak ak ak yeneen ñàkk yi li yeneen ñàkk yi di agire ci yaramu doomu aadama noonu la ñàkk bi di agiré donc euh, gisuma lu war a tax nit ñi di ci am xel ñaar. cérémonie bi moo teewee vraiment gis naa daal geste bu am solo la boo xam ne waa Ndoulo ca kanam ak les ressortissants de Ndoulo ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ñoo ko jox seen population. vraiment c' est un c' est de bonnes actions maanaam jëf ju rafet la ju baax yoo xam ne euh, askan wi def nañ ko ah ma di ko rafet rafetlu toujours maa leen ci gërëm di leen ci sant lii nag vraiment ndimbal la ci état ndax fi nga xam ne état bi moo ko waroon a def wax dëgg population bi defal ñu ko dañuy def rek la dul sant leen di leen gërëm. on va dañuy fexe nag nu ñu fexee nu ñu sensibiliser nu ñu duggee ci nit ñi askan yi waxtaan ak ñoom bii ak ñoom boo wax bañ xam ne vraiment lii lu am solo la ci nit ñi ndax day tax ëllëg bu fekkee ne feebar bi mi ngi fi maanaam du leen sonal lool wala mu dàq ko fi completement donc loolu moo taxoon gars ne nag vraiment jot na léegi ñu indi vaccin yi. dimbala askan yi ndax bëri na ñoo xam ne fi ñu toll nii dee gi bëri na dee bëri na donc pour fexe nuñ gaawee sauver askan yi moo tax président Macky Sall indi fi ay vaccin pour jéem a sauver population bi